dëgg la waaw cas bi de ñun mën naa ni sax euh, daf ñoo bett parce que booy bi ay 6 euh, heures du matin la fi jóge ni day day jëndi essence bi muy jënd essence ci la dem ci parking bi daal di aw noonu di jënd essence jënd essence bay dëpp jaaraat fi mu jaaraatoon ci lañ ko kar nee na bi ñu ko karee ci lañu ci la ko waajo yi yëkkati benn brique pour dóor ko ko mu protéger kook loxo bi léegi bi mu ko protéger loxo bi ci la moto bi pivoté wu mu daal di daanu bi mu daanoo ñaar ñëw song ko kenn ki jël moto bi taal ko mu jéem a jàppantee kenn ki ci la jël euh, jaasi bi mu feles ko ko ci ŋaalu lex bi waaw mu nekk nag affaire bu méttee metti wax dëgg yàlla ndax instant bi sonn na ci torop instant bi moom mi ngi hôpital mi ngi hôpital melokaan bi moom wax dëgg yàlla métti na trop ndax man moom bi ma ko xoolee damaa jooy parce que xam nga nit moom sa lii lépp ubbeeku vraiment metti na trop xëy na nag booy bi moom moo nekk jàmbaar rek nekk koo xamante ni tamit bañkat la ndax bi ñu ko goree terewul mi ngi mi ngi jàppanteeg ñoom di dàqanteeg ñoom bi mu demee nag ba nga xamante ni mënatul ci la ko ay femme gis arrêté ko ni ko toogal nga dallu femme yooyu ko gis ñoom ñoo ñu woo téléphone ànd ak ñun ba hôpital xam nga jox ñu seen numéro gi yëpp léegi gunge nañu ba hôpital ci lañ mujjee demaat wax dëgg yàlla ñoom it ñu mu metti leen trop non ñoom nee na bi bi mu koy gis nee na benn doomam moo ko gis bu jigéen mais ragal a tax ndax dafa dégg booy bi naan Woup Sa mooy sama rakk bi bi mu naan Woup Sa xam nga ak niñ ko gore fii kàddu gi dootul mën a jóg léegi nag looloo tax fekk na gars yi dem nañu waaw ci lañ génn non sama rakk bi moom moo jël moom moo leen wax ni leen xaaral ma jox leen sama numéro benn xarit ci la ko joxee numéro Modou Bakhoum mu woo ko non li mu génne moom bari na trop trop trop xëy na sax li ngeen gis fee ngeen ngeen gis mais li nekk hôpital bi ak li nekk ci yéeréem yi rek dafa fees dell dell waaw. jamono bi jóge na urgence léegi génn ba ñu utal ko saal waaw mi ngi tane bu baax a baax waaw mi ngi mi ngi ximbalu ko mi ngi wax naan mi ngi def lépp moto bi gars yi yóbbu nañ ko waaw def nañ déclaration léegi certificat médical bi lañu xaar mu génn ñu mun koo yóbbu police waaw. waaw def plainte contre X waaw. waaw am pagaille si ta fii moom li ñuy dund fii moom ci affaire violence agression dafa bari parce que yàggul dara def nañ ko fi benn nit xam nga rawatina foofu noonu lii na man pour man waa si tala ñoo ci war a jóg taxaw ci lu mel ni bañate am ci koñ bi ndax am na yoo xamante ni lépp duñu xaar police dañuy mobiliser wu wan fii ñun ñoo ko moom bu jaree ñu génn di vee ci affaire yi yu mel nii ni bañatee am parce que gars yi bu ñu bëggee sa moto dañ lay rey duñ soxla moto bi dong de boo riposé dañ lay rey yóbbu sa moto ndax imagineel fee mu tëdd ne ñi ngi financé xaalis bu bari te génnagul affaire yi jeexagul xam nga ndax fu mu toll ñooy jaayante di ko def xam nga loolu metti na yóbbu sa alal gaañ la mënatoo liggéey mënatoo dem fenn franchement metti na trop li ñu yëpp presque ñu ngi ñu ngi dugg 200000 te te affaire yi jeexagul te xam nga jamono ji fu mu toll dafa metti boo xamante ne da ngay xëy di takkalaatu affaire yooyu dal sa kaw day miti daal waaw waaye nag lépp dañuy bàyyi ci loxo yàlla rek yàlla baax na. waaw fii ñu nekk ci la mooy euh, quartier bi nag gay Mbaye ñun daal li ñuy ñaan gaay mooy lu ñu mënoon a gën a yokk sécurité bi ñu yokkoo ko parce que agression bi metti na trop trop trop ndax euh, léegi booy gi boo boo amee sa dara sa doo bëgg a génn ndax nit ki mënoo ñafe am sa kii pour liggéey pour suturaal sa njaboot ah ñu dikk agressé la ba pare gaañ la franchement métti na sécurité bi moom war nañoo mën a yokk éléments yi su ko defee nit ki 6 heures du matin war ngaa mën a génn doxi say soxla am na ñoo xamante ñu bari ci la ñuy génn di liggéey mais léegi si mënatoo génn sax liggéey ndax boo génnee yaa ngi xalaat ñu ngi lay agressé te bu ñu la doon agressé yóbbu sa moto sax rek mu mu neex mais dañ lay gaañ ba pare soo a yóbbu sa moto franchement métti na trop metti na trop no moori maçon mooy métier jawar Jakarta bi xëy na des fois bu xawee metti ci côté am mu dem liggéey ci Jakarta bi su dëkk bi neexee mu continuer maçon moom maçon la du dawal ko ci Jakarta. démb dama toog ba ñuy wasi fi may jàppoo nii pour julli si la sama téléphone sonné bi mu sonné ma wuyu mun ma dafa am benn xa benn femme woo ma ni ma dafa am benn xare bu góor bu ñu agressé fii yor Jakarta. automatiquement ma ne ko Mori Diop la te moom boobu waxuma sax Mori Diop man maa ko automatiquement Mori Diop si laa jóge daal di ubbi buntu kër bi daal di ñëw fëgg ba magam si palanteeram fii ni ko baabu mun waa man ko Mori dañ ko agressé munuma Mori man ko waaw daal di mu taal di taxaw di ubbi buntu ma composé numéro Mori woo ko Mori wax ak man ni ma booy wool suñu waa dañ ma agressé ma ne ko fan la mun ma si ginnaaw armère yi ma ne baabu Mori ne la wax ak man moom lañ agressé baabu ne ma sa siir man ko moom Mori la numéro am laa woote nii te dem na te nànk la wax après ma daal di jóg baabu daal di fëgg Ibra rakkam ñu daal di dem biñ demee fekk dara jëpp wër ko ñu daal dem hôpital Kandji ñoom ñu xool ko daal ñeen léegi dem leen directeur régional parce que deret ji li mu signé dafa bari ñu daal taxaw fi yëpp benn booy fii bu ñuy wax bàyyi talaa fëgg fëgg ubbiwuñu après finalement si ñu si taxi ñu xaju si ñu ñu daal di dem biñ demee ñu yóbbu ko direct urgence biñ demee ñun xamuñu ne urgence sax dañ ko changé ñiy wër mais dara ji depuis si bunt bi ba nëga ni ji lañ topp moo ñu doon guidé ba ñu fekk ko si fi mu nekk automatiquement instant yi ñu daal di bind ay ordonnance biñ bind ay ordonnance fekk maa ngi woon ak 20 minutes may dem ma daal koy joxe après si lañ commencé bind yeneen ma laajte ne ah kii faaw affaire yi seer ma ne baabu bi nga xam moo ko jëndoon jakarta bi pour moom maçon la des fois bu liggéeyul mu dem forci parce que njaboot gu sew la yor bu liggéeyul des nii la kaa bi waaw loolu moom dafay bari parce que moom nee ma d'abord bi muy dem romb na leen mais comprendre lu woon léegi bi mu wàññee ko waatee si leen xaaral ma demaat parquet ba gaara fa tuuti tombé bët set wicci wicci mu doog a dem for dara parce que des fois bu xëyee dañ ma dama siy for 2000 wala 2500 mën see fortaat dara doog a xëy dem sànce léegi noonu si la ko gars yi dóor birig biñ ko dóoree birig mu daal di daanu waa ji jël jakarta bi mu jëlee jakarta mu xëccoo ko moom téye benn loxoom xëccoo ko moom waa ji rocc jaasi yi bi mu koy dóor jaasi ji si loxo bi la ko naroon dóor jaasi moo daal di bàyyi moto bi bi mu bàyyi moto bi keneen ba keneen ki jël moto bi daal di dem léegi ko dóor jaasi ji nag moom mu topp ko deret ji parce que si gémmañ la ko dóor moom mu topp ko deret ji di xel mu topp ko di jéem ay ay loog moom parce que nee na ma si biir wax dama kaa bëggoon topp ma dee si yoon bi wala mu dee mais fu mu dugg dama fay dugg looloo tax deret ji foo tourné deret ji bari fa moom moo doon topp waa ji waa ji ne si biir ci kaw tali bi di circuler yor jaasi ji noonu mais moment boobu gisul kenn ko wala si la maire yi ab benn maire déggee wax ji mais bari wu mu daal yee doom yi bon doom ji daal di génn bi ñu génnee ñoom ñëpp ñu daal di génn ñaari jigéen la ak kenn ku góor ñoom it ku yebu sant leen bu baax a baax jàpp nañ si trop ñoom ñoo ma woo sax téléphone ñoom ñoo daal di génn ànd ak ñun ba hôpital nii ni ñoom ñoo ko téye parce que su dul woon loolu moom da leen topp daanu waaw suñu xel mën naa dal waaw de génn na urgence suñu xel mën naa dal mais métti gi moom foo ko wékk rek romb na fa parce que kanam gi yëpp dafa ubbeeku métti gi foo ko wékk rek romb na fa te parce que li ñu ci faree démb tey moom pile de deux cent mille mais koñ bi moom vraiment grâce ñoom parce que ñoom daanaka démb am na lu bari bari loo xam ne waa koñ bi ñoo ko dajale indi ko fa démb parce que bu du woon ñoom it mu gën a métti bon ñu jàppale ñu rek parce que ñu jàppale ñu baax a baax parce que fi ñu toll nii ku la rey nar a rey sax boo ko reyee yoon téye la waaw ku la nar a rey boo ko reyee yoon téye la kon fan la nit di mujjee parce que tey jii boo yoree jakarta yor arme buñ la jàppee dañ lay téye boo yoree oto yor arme buñ la jàppee dañ lay téye boo yoree ay xar laadum yor arme buñ la jàppee dañ lay téye te ñoom buñ la jekkoo rey la parce que ki ko dóor jaasi ji moom bakkanam la soxla woon parce que birig la ko njëkk a dóor mais birig bi moom Mori moo ko protégé moom bu amul woon kàttan démb fa la bu birig moom moo ko protégé birig bi si boppam la doon dal verre yi mu solo ni yëpp a toj yére yi démb ku la ko war nii la nit ki am mi ngi dund da nga naan dund yére yëpp a taq rip ak deret voilà lu ñu mën a jàpp lañ jàpp lañ si waaru kaaraange voilà ay bi ñuy salaatu la boobu ñu ngi salaatu diggante bi ñuy salaatu la parce que boobu waajaa ngi noddu salaatu boobu man la si laay jàppoo mais sama njàpp mi foofu laa ko dogee diggante boobu la quoi. affaire bi nag metti na trop ba fu metti yem ndax boroom kër gu ndaw gu xëy di wuti ndax sa njaboot ñu dogaale la def la nii metti na trop ndaxte ñii ay jàmbaar lañu bi seen papa gaañoo ba léegi ñoo yor seen kër kenn fekku leen ci ñu yor seen kër gi nag kenn xamalu leen dara ku sa jabar aye nga dem wuti ñëw jox ko mu togg yàq njaboot gi lekk kii nu def nii jaba soxnaam moo yor mbaar mi bu xëyee góor-góorlu dem marché bi mag wuti njaayam dikk jaay lu ci am suturloo ko bokk ak njabootam seen goro seen seen goro bi fi ne di jàmbaar moom bi di jàmbaar fàkk tëdd moomoom njaay mu sew mais bu xëyee ma nga ca parking bee di jaay lu mu am ñëw toog toog ak njabootam lii daal moom mitti na pop mitti yam si la mi nag amul benn sécurité sonn nañu torop torop torop torop jakartaa yi ku fi am jakarta bu bees du am ak yow ñaari fan ñu jël ko gaañ la xam nga loolu tamit neexut xale yi jàmbaar lañu xale yi man dama leen a naw ñoo dëkk fii ñoo dëkkandoo fii ak seeni waajur ak sunuy waajur la woon ñuy jàmbaar bi seen papa génnee àdduna ba négan kenn xamalu leen kenn fekku leen ci kër gi ñoo fi nekkal seen bopp rawatina xale bii ñu def nii kii ku ko tiimul fee rek xamoo mititam xamoo lu ko daal man ba tey xale bi tiimaguma ko xale gisaguma ko ndax démb dem nañu hôpital waaye duggunu waaye ñi ko tiim ñoom ñoo wax mitti mitti bi ak ak ñi demoon fee fee moom ma fa demaguma tamit hôpital xale bi tiimaguma ko gaañu gaañu neen nee na metti na ndax fii la lex bi lañ ko dóor birig neen birig ba neen fee boo fa demee deret ja ba tey taas taas yaa nga fa ñu ku tuñ mi am problème dégg naa ba ñu ko njëkkee yóbbu si poste de santé kanji jaasi jaasi la bañ ko njëkkee yóbbu ci uh, hôpitalu Kandji bii dañu ko bandaas rek fexe ba dogale deret bi ne leen daw leen hôpital régional lii du faju fii xale bi daal metti na ba fu metti yam metti na trop yàgg na yàgg na yàgg na fi doy na waa lii moom guleet tey lii sax lii ngeen fi indi nii tey guleet tey la fi doogu waaye lii yàgg na fi yàgg na fi trop métti na trop fi mu ne bu timis xasee ba jot wala géeyee sax doo ñemee yónni sa doom sax mu génn da ngay gis barki démb la ñu ko feet téléphone bi ñuy yuuxoo la dekkataa bi jaadu dem ba tey kenn dabu fii daal liñ fii def bari na lool wax dëgg yàlla bu ñu dimbalee ñu jël bu ñu dimbalee jël koñ ñi lëndëm na làmp bee ba mu fayeeg léegi ëpp na ñetti at lampe ba li ngay jan lool fii dafa lëndëm daal maanaam ku nu ku nu dimbale nag nag nag nu jël ku nu dimbale rek ñu jël wasalaam sama xol daa tooy. maa ngi tudd Aline saw maa ngi dëkk Cité Lamine quartier Cité laa dëkk Kees robinet gay Mbaye waaw ki ñu agressé mu ngi tudd moori Diop mu ngi dëkk fii mason la maçon lay liggéey mais en même temps dafa jënd jakarta bu bees bu liggéeyewul mason ci jakarta bi lay xëy mais depuis démb si suba la ñuy yeewu ci fajar gi ñu dañ ko agressé mais man bi may xëy di dem Dakar parce que man Dakar laay liggéeyee. ma xëy di dem Dakar laa romb fi ko ko agressé gis fa deret ak yooyu après benn femme bu nekkoon foofu duñu expliqué nii fii lañ ko agressé mais fajar gi lañ ko agressé ñaar lañu nag ñaari nit lañu mais dañ ko dóor jaasi si mâchoire bi gaañ nañ ko daal ay gaañ yu méttee méttee métti métti daal ci yaram bi actuellement nii mu ngi hôpital depuis démb ba tey génnagul mu nekk lu grave loo xam ne fu nekk suñu biir koñ bi te ñu koy def daanaka mën nañu sax ñu nag ñoom ñoo dëkk ci biir bi ñu koy def muy loo xam ne nii manqué nañu police manqué nañu sécurité lu bëree bëree bëree bëri daal ci biir koñ parce que li mu fi am bëri na bëri ki dem boo paase rek lañ fi jam benn waay ci ci terrain bi te fi mu amee tamit bari na li ñu fay gaañ ay doomu aadama te côté parcelle bi lay ëppee daal waaw. fan la amee exact fii ci koñ mi ngi am parcelle si ginnaaw armeer yi armeer wu armeer Cité Lamy yi diggante armeer Cité Lamy ak Dioum quoi. fajar la fajar la parce que am na benn femme bu fa nekkoon mee ne dafa yuuxu ba sonn mais gisul kenn ku ko wallu mais fajar gi la daal fajar gi lañ ko jam Euh, dañu leen ko woo wax leen ko rek parce que dañ ko yóbbu woon euh, hôpital poste de santé bi nekk biir parcelle biñ ko fa yóbboo affaire yi gaañu gaañu yu metti ñu mujj koo évacuer yóbbu ko hôpital régional léegi nag depuis démb ba tay ñu ko téye hôpital régional mais boobu ba daal génnagul tant pis tamit gaañu metti lañ ko gaañ waaye yor na ay soxna ay njaboot ñii ay njabootam lañu yor na ay njaboot benn soxna laam am am na ay njaboot ah maximum am na ay cinq ba juróom benn bant yooyu quoi waaw ah, tey doomi ndaw la yëglu nañu yëglootu kay xanaa ci lañ dëkk parce que ñaxtu nañ fu ne jooytu nañ ko surtout biir Cité Lamy gii ñu nekk nii maanaam lépp fi lay xewee daal maanaam ci li ma la ko mën a waxee képp ku fi jënd jakarta bu bees ak pour jugut liggéey xamal ni boo ci amee weer moom ñu nangu ko say loxo te buñ ko dee nangu ay gaañ yu métti lañ lay gaañ ci actuellement daal maanaam ci ni ma la ko mën a waxee pour mu leer mais yëglu nañu moom fu ne fu ñu xam tamit dem nañ ko mais dara saafara wu ci daal xam nga maanaam bu ma de boo déggee man la fii lañ dëkk parce que Cité Lamy la am nañu baax ñu fi nekk am nañu bon ñu fi nekk mais li gën a yéeme daal mooy bu ma leen a fii lañ dëkk daal maanaam soriwuñ parce que liñ fiy jàpp ci cas yu mel noonu bëri na ci agression yu mel noonu daal bëri na. bëri na fi du fi jeex barki dem rek suñu mbokk mi dañoo sàcc ay xaram yàggul dara. li ñu mën a bàyyee xel daal mooy ñu jàppale ñu ci fii ñu nekk nii Cité Lamine parce que sonn nañ trop autorité fii nekk yëpp demuñu fi dara seen bopp lañ fi nekkal bu ñu yuuxoo ba ñu falu fàtte nañu Cité Lamine defuñu fi dara. defuñu fi dara dara defuñu ko fi sonn nañ trop nag fii si Cité Lamy kàcc Cité Lamy bëri na sàcc bëri na lu ne daal bëri na agression lépp bëri fi lépp ngi fi daal biir Cité Lamy lu ñu mën a jàppalee ñu jàppalee ñu ko te yàlla tax ci côté sécurité bu doy sëkk taal lamp yi parce que koñ bi moom ay lamp yu bëri am ay làmp moom manqué na fi lëndëm na guddi sax doo ñemee yónni sa doom ndax lëndëm bu timis xasee ba maase sa doom doo ko ñemee yónni te gars yi moom bu ñu jaagaree xamatuñu ay fajar xamatuñu bëccëg ñuy xëy 6 di du matin sax dañuy ragal yeewu xëy ndax agression 6 heures fajar geeg guddi gi lu ñu mën a jàppale daal ñu jàppale ñu ko waaw.